asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci MK TV di tele bi bàyyi ko fii ci biir jumaa ju mag ji noo leen di nuyu di leen ziar di dellusiwaat ak yéen ci bind yi nga xam ne weer wu jot ci juróomi fan ci weer wi lañ koy jàllale yëpp jëm ci dundug yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu tàmbali ko bu yàgg tey di bindu fukkeel bi ak juróom-ñaar ñu toll nag ca gàddaay ga ba jotoon caa waxtaan lu baree bari waajtaay wi ak gàddaay gi nga xam ne saxaaba yi jot nañoo dem jiitu ji yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak waajtaay wi nga xam ne yonent bi mi ngi ko doon waaj di xaar ndigalul boroomam ba waxtaanoon nañ sax ci pexe yooyu nga xam ne yéefar yi màkk yi ñu ngi ko doon def ba def ab réunion bu mag boo xam ne nii ñu ngi doon waajal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotaay boo xam ne mboolem xabaa ili nekk màkk ak mboolem noonu lislaam yi mag yëpp ñoo ko fekke woon waxoon nañ ne sax jataay boobu iblis allahin fekke woon na ko soppiliku góor gu mag goo xam ne najd la wax ne fa la jóge bi ñëwee ci jataay bi ñu laaj mu ne fa la jóge ñu ne ko mën ngaa toog waxoon nañ ne bañ waxtaanee lañ wax ca jotaay ba lépp suñ borom la ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam ko ko nettalee it tegal na ko ca ne ko ñu ngi pexe waaye yàlla yi ñu ngi pexe ca pexe yàlla mooy jàll ñoom seeni pexe day naax saay du jàll wa is yamkuru bika allasina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa na wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin ñi nga xam ne day dañoo wedd yàlla ñu ngi lay fexeel teg ay xalaat yi génne la dëkk bi dàq la wala xalaat yi tëj la wala sax xalaatu rey la yooyu yëpp génn na fa bañ dëppoo ci ne dañ koy faat borom bi nag daan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa yamkuruuna wa yamkurullah ñi ngi fexe waaye suñ borom yi mi ngi fexe te wallahu xayrul maakirin te pexe yàlla mooy féete kaw ca loolu bind bii ñuy bëgg a nettali danañ ci dégg ne ñoom fexe nañ gën gaa kawi fexe waaye pexem yàlla moo mujj jàll bi nga xamee ne jullit yi gàddaay nañ waxoon nañ ne ñoom ñëpp dañoo gàddaay ci nëbbatu ba mu des Seydina Omar nettali woon naa gàddaayu Seydina Omar ci bind bi weesu nan la gàddaaye moog waa këram gàddaay goo xam ne dafay yëgle ne mi ngi dem ca jàmm dong la ca am ñoom bi ñu yëgee nag lañ ne euh, buñ fexee ba Muhammad génn màkk dana amaat doole ñëw dal suñ kaw te lii muy wax dana ko tere te lii mu indi dana ko samp te boo moytul lool dana dana féete kaw lii ñu nekk te dëgg-dëgg noonu ñu ko waxee woon noonu la deme yonent bi nag gàddaay nag luñ baaxoo xam la yonent yi dañ ko daa def Seydina Ibrahim gàddaay yoon na ànd ak soxnaam yonente yàlla Moussa gàddaayoon na yonente yàlla Yuusufa gàddaayoon na yonente yàlla Aysa alayhimu salaam moom it gàddaayoon na ku ci nekk ci yonente yooyu mënees na cee nettali gàddaay goo xam ne fa nga tasaare diini ja ak fa nga juddoo bokkuñu mu doon lu yaatu loo xam ne euh, buñ demee ci taarixul anbiya dañ ko ca fekk kon gàddaay sunna la ci sunanul anbiyaay gàddaay luñ baaxoo def la lu ñu baaxoo def la mu bokk ci li nga xam ne yonent yi dañ ko daa def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam menn moom moo des màkka ak abu bakrin ak alu bakrin muy waa kër sayyidina abu bakrin radiallahu taala ñoo des bi nga xamee ne sallallahu taala alayhi wa sallam nag am na ndigalul boroomam pour génn ci la ñëw kër abu bakrin ma nga fa ñëw waxtu bëccëg xam ngeen ne màkk day tànk ci arab yi dañoo baaxoo waxtu woowu bu jotee dëkk bi danaan selaw ñëpp dañuy noppalu loolu moom aaday arab la ju yàgg joo xam ne manees ne ba tey jii loolu daanaka lu mel noonu moo am booba daanaka climatiseur yeeg ventilateur yi amut bëccëg jotee ñëpp dañuy dugg seeni kër dallo waxtu woowu la yonent bi génn te waxtu woowu ñoom waa kër Abu Bakar nee nañ xamuñu waxtu woowu yonent bi daa ko ñëw sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëw kër Abu Bakrin bi mu ñëwee fekk Abu Bakar toog ak waa këram soxna Asma bintu Abi Bakrin nga xam ne doomi Sayyidina Abu Bakrin la dana feeñ ci gàddaay gi Asma bintu Abi Bakrin mi mook Sayyidatuna Aysa ñoo bokk waajuru góor waaye bokkuñu waajuru jigéen Asma Abdullahi ibnu Abi mi nga xam ne moom it dana feeñ ci waxtaan wi moom la bokkal yaay Asma waajuru mu jigéen dafa tàggoo ak Sayyidina Abu Bakr mi ngi tudd la bintu Abdul Uzza noonu la waajuram bu jigéen tudd mushrika la ab yéefar la woon am nañu ne sax na ci lislaam waaye euh, xutay la daal la yaayam tuddoon asma mii dafa fekk ak abdullahi ibn abi bakrin ak lenn ci alu bakrin asma moo féete mag sayyidatuna Aïcha bi mu ñëwee mu xamal aboubacar ne ko daal euh, am naa ndigalul génn gàddaay ndeysaan aboubacar ne ko as soxbatu as-sohbatu yaa rasulallah man day li ma bëgg rek mooy ma ànd ak yow lu xew daal loolu laa ñaan yonente bi sallallahu alayhi ne ko as-sohba as-sohba yaa Aba Bakrin incha allahu taala ñooy ànd Aboubacar mel na ku aal jugal ci mbégte wax nañ ne keroog maanaam jooy na fa jooy mbégte yoo xam ne mësee sut gis ku bégee ba jooyee noonu ndeysaan ci cofeel gi mu am ci yonent bi ak ñeewante gi ba nga xam ne daal xelam ak xolam munta munta maanaam munta supporté yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay wala ne ciy jafe-jafe ca du ne ci wetam ak cofeelam ci yonent bi daa jiitu yonent ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abubakar mel na ku aal dikkal mboolem lu mu am ci alal mu teg ko ne lii pare na pour lépp lu ñuy financé ak lépp lu ñu soxla woo rek pare na moom pour teg ko mboolem xeeti pexe yi nga xam ne maanaam dañ koy sabablu ngir am ndam bisub keroog Seydina Abubakar def na ko muy waajal ñaari daaba ñaari gileem yu yoo xam ne waajal nañ ko ak lañ ko war a lépp luye koo xam ne nii ab sàmm la boo xam ne ci àll bu la dëkk muy Abdullahi ibnu Urayqit ci àll bi la dëkk àll rek la xam ngir lan ngir ñu sóobu ci gàddaay gi mu tegtal leen yoon woo xam ne nii dañuy xotti waneen yoon woo xam ne du bokk ak yoon nañ baaxoo xam mu jëm Madinatul Munawwara yoon woo xam ne dañuy dugg ci biir Sahara bi am nañu ne sax yoon woowu buñ ko doon misaal da ngay mel ne ku jigee Màkka jëm Yaman xam ngeen ne jóge màkk jëm yaman sore naa ku jëm madinatu a yoon woowu la leen Abdullah ibn Urayqit fas yéene jaarale mu nekkoon nee nañ sàmm bu wóor bu jub boo xam ne nii daal moom moo leen war a tegtal yoon yi kon kooku bokk na ci liggéeyub Seydina Aboubacrin bokk na ci liggéeyub Seydina Aboubacrin rakk yi Seydatuna Asma mii nga xam ne danaa ñëwaat ci moom incha allahu taala ñu koy wax Abdullahi ibnu abi bakrin ndaw wax nañ ne jamono jooju amoon na euh, ñaar fukki at mi ngi tolloon ci ñaar fukki at abdullahi ibnu abdullahi mi moo war di digluy xibaar bu guddi jotee mu ñëw nett leen na leen waa Màkka nangam nangam ñu ngi koy waaj delluwaat waaye moom comme day ñëw xam na fi nekk bu dee ñëw kon day baax fam jaaroon ba ñëw ndëggu tànkam yooyu noonu pexe yiñ ñu mën a def ba nit ñi duñ ko gis pexe yooyu mooy Amir ibnu Fuhayr mi moom it nekkoon surga boo xam ne nii ci kër Abu Bakar la nekk yoral ko ay ak juram moom ñu ne ko saa yu Abdullahi jaaree rek suba teel jaaraat fa ak say sag jur bu defee tànk yi effacé wu lii mooy xutta bi nga xam ne Abu Bakar jël na ko pour gàddaay am yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne weeru safar la génn Màkka ci jeexantalu safar ci ñaar fukki fan yi ak lu teg am na ñaar fukki fan yi ak juróom am na ñaar am na ñu ne ñaar fukki fan yi ak ñaar boo ko doon xool le 12 septembre atum 622 miladiya la génn këram di gàddaay moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam keroog bi muy dem mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak ñett ndax biñ koy yónni ñeent fukki at la amoon bi muy gàddaay woote na ba woote bi am fukki at ak ñett kon juróom fukki at ak ñett la amoon daanaka bu ñu waxee ati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa diggaale Abu Bakrin ndax yonent bi màggoon na ko ñaari at kon nii la yëf yi demee bu ko defee nag soxna Asma nak moom moo doon andil ñam moo doon doon andil lekk léegi nag tànk yooyu Asma doon jaar ak Abdullahi ibn Abi Bakrin Amir ibn Fuhayri saa yu jaaree rek mu jaar fa moom ak juróom daanaka équipe bii lañ tànnoon kon yonent sallallahu taala alayhi wa sallam daal digal sidna ali ngir mu wuutu ko ca lalam ba ba mu tëddoon ba ca mbàjj mu verte ma kon na ko ibnu hisam di waxee moom moo ko war a sàngoo nga xam ne risque la ñee waxoon naa ne pexe yi pexe woon mooy dajale xabila bu ne indi xale bu góor ñu jox ko jaasi ñu dóorandoo ko mu faatandoo nga xam ne duñ ko mën a jiiñ benn xabila loolu waxoon naa ko ci bind bi yeneen moo nekkoon seeni pexe biñ ñëwee ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ biñ ñëwee fekk nañ yonent bi génn na ba Ali tëdd ca lal ba sàngoo mbàjj mu vert ma Seydina Ali karamallahu wajhahu bi nga xamee ne agsi nañ suñ borom def ñu gëmmeentu foofa ca buntu ba ñoom xale yu góor yooyu ba nelaw fa nelaw yu dëgër dëgër dëgër ba yonent bi romb leen dem ba tibbu ci loxoom jàng wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axsaynaahum fa hum laa yubsiruun tifli ko ci suuf si kenn ku ci nekk mu taqal ko ci sa bopp bi ba ñoom ñëpp nga xam ne fukki xale yu góor ak nangam lu teg mu teg ko seen bopp yi dem yoona nee nañ daal benn waaye moo leen fa fekk ne leen waaye yéen lii ba jàmm la ñu ne ko ñun de ci Mouhamed mii lañ jëm mu ne leen la dem na bu yàgg yéen a ngi fi tëddi ni la waaye kooku dem na bu yàgg biñ yeewoo ànd ak aal daw dugg si ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk sidna Ali tëdd sàngoo mbàjj mi ñu muri gis muy ali ñu jaaxle kon li ma la waxoon léegi ne la borom bi nee na wayam kuruun wayam kurullah wallahu xayrul maakirin feeñ na foofu moom ña nga doon fexe waaye yàlla pexe mi jàll na bu yàgg ñu ànd ak ak jaaxle lool ba wax nañ ne sax keroog àll yi duma nañ ko foofu dóor nañ ko fa ngir liñ ko doon laaj ana Muhammad nangu ko wax wax nañ ne Abu Jahlin ba mu yëgee loolu dafa daw kër Abu Bakrin soxna Asma la fa fekk ne ko ana sa papp te xam nañ ne fu Aboubacar nekk fa la yonent bi nekk mu ne ko mu ne ko daal xam ma fu mu nekk nee nañ ne abu asmaa nee na mooy net la xisa bi keroog Abu Jahl mbéj na ma mbéj moo xam ne jaaro bi ma takkoon sama nopp bi sax dafa war di suuf ndeysaan asmaa di soxna su baax soo xam ne Subayr ibn al mooy borom këram bokk ci fukki yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam seere woon na seen àjjana asmaa moom mooy yaayu Abdullah ibn Zubayr mi nga xam ne kenn la ci saxaaba yi ci ay turam dana feeñ bu baax a baax asma moom it mooy ki nga xam ne moo njëkk am gone ginnaaw gàddaay gi yooyu yëpp dana ñëw ca kanam incha allahu taala kon bi ñu demee nag ñu dugg ca xuntu ma nag xuntu mu ñuy wax xaaru xira foofu la yonent bi sallallahu alayhi duggoon dafa am nag ñaari xuntu yu am yoo xam ne dañ koy jawale am na xuntu bu ñuy wax xaaru sawr am bu ñuy wax xaaru xira xaaru xira mooy xunt mi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dugge xalwa lu jiitu muy nekkub yonent xunt moom fa la bi nekkoon ba fa la ko wax yu bi fekk xaaru sawru nag mooy xunt mi nga xam ne bi mu gàddaayee ci la duggoon ñaari xunt yi bokkuñu ñu baree bare dañ koy jaawale xunt mii mooy xaaru xera mooy xunt ba nga xam ne fa la ko jibril fekkoon naan ko iqra xaaru sawru nag mooy xunt bi nga xam ne ca la duggoon làqatu eh, ca ba muy gàddaay xunt moomu nag ci laa bëgg a ñëw tuuti ci leeral xunt moomu yonente bi sallallahu am na fa ñetti fan wax nañ ne guddik àjjuma la fa ñëw guddik gaaw guddik dibéer xëy altine génn ca xunt ma wuti madinatul munawwara ñetti fan yu yu metti sax yoo xam ne biñu agsee ba ci xunt mi xunt mi lëndëm këriis rag lool Abu Bakrin moo wax yonente bi ne ko bàyyil ma njëkka a dugg bu ko defee bu fi nekkee lor ma man bëgguma ngay dugg yow am loolu fi lor lépp luy lore bu ñëwee na njëkk sama jëmm ji nee nañ Abu Bakar ba mu duggee defaraat ko fàkk ko defar ko ba mu jekk wax yonent bi mu daal di yegg si yonent bi daal di dugg ca xuntu moomu noonu mook Abu Bakar teewut nee nañ ne am na ay pax yu fa nekkoon yoo xam ne tànkam bi la ca saañ am na sax ci borom xam-xam yu ñu naan boobu noonu jaan matt na ko fa wala jiit fet na ko fa ju méttee métti bañ gis jëmm ji ñaq tooy ba yonent bi ne ko Aboubacar lu mu doon mu ne ko du dara fekk booba loole nga xam ne moom la sakkee tànkam bi daa bañoon mu laal yonent bi mu joxe tànkam mu màtt ko foofu yàlla wax na ci alxuraan ne illaa tansuruhu faqad nasarahu llah moom day bu ngeen ko dimbaliwut it yàlla dimbali na ko moom yonent bi is is axrajahu lasina kafaru saaniya snayni is huma fil xaar ñaar ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci xuntuma ci allasina kafaru mooy ñi weddi yàlla di yéefari màkk yi génne woon leen is yaqulu li saaxibihi àndandoo ba di wax moroomam àndandoo ma nang ko laa tahzan inna allaha maana bul tiit day yàlla suñ borom bi ngi ànd ak borom bi nee na fa ansalallahu sakinatahu waaye yàlla wàcce na ci ñoom ak dal aku kóolute ak xel mu dal alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wàcce ay malaayika yoo xam ne nii ñi ngi taxawoon di leen garder di leen jàppale wa jaala kalimata allasina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya alxulya ña nga xam ne ñoo waxoon ne du fi amee yàlla naax saayal seeni pexe ak seen kàddu googu noonu kàddu yàlla daal di yëkkati ko ca kaw féete kaw te loolu mooy pexe yi ñu bëggoon ba réunion dañ bëggoon dara amu ci te mooy faat yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kuntu ñu nekkoon waxoon naa ne asma moo leen doon indil lekk Abdullah ibn Abi Bakr moo leen doon indil xibaar yi Amir moo yoroon gàtt yi nga xam ne moo doon jaar ca ko tey xuntuma ngir seen dëgg yi effacé wu xunt moomu bañ ca génnee am nañ kuñ jëloon pour mu nekk seen dalil di leen tegtal yoon wi kooku mooy euh, Abdullahi ibn Urayqit moom lañ tànnoon pour mu nekk seen dalil xunt moom boo demee ci mbindum sëriñ bi ci gis bu da nga fekk tu Tuubaa wax ci mooy bañ duggee rek suñ borom daa dogal ab jargoñ ñëw lënd xuntuma ba mu fatt taraj am pitax ñëw fa wàcce fam tàggam nen fa ca saase mu mel na daal lii lu mu gàtt-gàtt war naa jege ay ati at nit laalu ko bi nga xamee ne pexe yi nag mm, naax saay nag ñoom seen pexe yi ci lañ déclaré nag màkkatal mukarrama ne Muhammad ak Abu Bakrin képp ku leen gis ñu ñëw andil leen ko moo xam dañuy dund walla ñu faat pare nañ pour neexal la téeméeri giléem téeméeri giléem ca jamono jooju mën na wax ne te pare nañ pour jox la ay milliards bi mu waxee loolu nag ñoom ñëpp ñu génn tasaaroo ci àllu màkk bi ñëw nañ ba ci xuntu mi sax ñu taxaw di werante Aboubacar nee na ay buñ sëggoon buñ sëggoon rek gis ñu nga xam ne kon pexe yàlla féeti na kaw loolu la sëñ bi naan wa min xawaariqa bada ma xaasa xaarul muqtada salla alayhi man hada bihi sawi tafahumi bi an ka buutin nasajat maa amaamin asbatat mooy jargoñ ba lënd na foofa pitax ma nen na fa te loolu lépp ci xarbaax yi nga xam ne yàlla defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw man bihi xat satarat saatayhima ka sulami wal kaafiruuna xat ataw wa asaral maahi xafaw wa minhu say an lam yaraw wa rajaaw bi alami mu ne yéefar yi ñëw nañ ba ca xuntuma sax waaye mënuñoo gis ki ci ca xuntumi mu mënuñoo xam benn pexe ca loolu waa rajaxu bil alami ñu delluwaat ak aw mitit delluwaat ak jaaxle wa huwa suu tasatturi ma al atiqil akbari moom yonent bi yàlla nga ko suturaal ci xuntu moomu mu ànd ak al atiqul akbar muy sayyidina abu bakrin fil xaari mar an nasari wa ma raaw min arimi suñ borom aar ku foofu ci xuntu moomu bayit yooyu loolu la fi sëriñ bi nettali kon mbokk yi def nañ jaxuntu moomu ñetti fan wala ñetti guddi yoo xam ne foofu lañ nekkoon bi nga xamee ne nag xëy nañ ca subak altine ga nga xam ne rabiul awal mi ngi dugg ndax ci jeexantalu safar la la lii xeewoon ci jeexantalu weeru safar la xeewoon lii ñu dugg nag ci rabiul awal nag ku tedd ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ca xuntuma ñaari gileem yi nga xam ne moom la abu Aboubacar waajaloon taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn gileem gi beneen gileem gi ci des dégg nga maam dalil boobu ñuy wax Abdullahi ibnu Urayqit yéeg ca nga xam ne moo leen tegtal ñu jaar ca yoon woo xam ne bisub keroog la nit mës a jaar ca yoon woowu xotti ko waaye cey woowu yoon am na nag ay kéemtaan yu rëy rëy yoo xam ne xew na ci diggante diggante xuntuma ak bi yonent bi àgg Madinatu Munawara mooy soxna su baax soosu nga xam ne dafa defoon tànt ci àll bi kuy tukki ba romb ko rek boo soxlaa ndox mu may la nga naan boo bëggee noppalu nga noppalu masjidu Quba bi ngeen di dégg bi jaar na fa ba wane fa ay kimtaan fekk waa a munawara bis bu yàlla sàkk ñi ngi génn ci mbedd yi di yéeg ci kaw terrasse yeeg garab yi di xaar gan gi saa yu ñu ba timis jot rek ñu delluwaat ne gan gi day xam naa ak seegut buñ dikkaatee ci bind yi ci des nag ci la ñuy wax incha allahu taala ñaata fan la yonent bi def ci diggante xunduma ak madinatu munawara tant boobu ka ca nekk moo mooy borom tant kan la ak lu ca xew ak kiimaan gu rëy ga fa bi wane ak masjidu Quba ba nim agsee nag ci dëkk bu rëy boobu di Yasrib te yonent bi soppi tur bi tudd ko al madinatul munawwara nga xam ne foofu la tëdd tey yal na yàlla dolli ko xéewal te dolli ko ak i saxaabaam kon mbokk yi lii mooy étape bi nga xam ne mooy ñaareelu étape bi wala ñetteelu étape bi ci gàddaay gi muy ba nga xamee ne nett lañ gàddaay ak yi nett li waajtaay bi nga xam ne yéefar yi ñu ngi ko doon def ca daaru nadwa ca iblis fekke woon ko ak pexe waaye pexe yi nga xam ne yonent bi taxawal na ko ba yàlla def mu mu mu am ndam ci pexeem yi ba àgg madinatu munawara ca dara xewut yii mooy état bi nga xam ne moom lañ doon nettali ci bindu tay bi mu des nag yoon wi la ca xew ak ak duggam madinatu munawara ak la fa xew lépp ci bind yi ñu jëm incha allahu taala lañ koy waxtaane ñoo ngi sant mbokk yi ñu doon topp ci MK TV di sant bu baax a baax Cheikh Abdoul Khadir ak ñi mu àndaloon ci liggéey bi yëpp mbokk yi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa